waaw maa leen di fay grand di la ziar di rafetlu seen teewaay aussi fii ndax euh, ñu ñàkk ñaan ngeen wax dëgg yàlla rafetal ngeen ko yombal ngeen ko di leen remercier itam di leen dalal jàmm bu baax fii ci jotaayu Këlcé yi tey wax dëgg yàlla di nuyu ñëpp ñi fi teew di ko njëkkee ci suñu kilifa gi ñuy wax Souleymane Dia bu Iconoclaste waaw di ko ziar di ko dalal jàmm bu baax itam di nuyu képp koo xamante ne rek yaa ngi bëggee culture yi yaa ngi ciy jàpp ndax euh, waaw lu metti yàggul tey ñun ñëpp ay ndaw lañ waaw di santaat sunu borom daal bu baax ci rafetlu toogaay bi. <coughs> waaw culture yi nag wax ci ñoom waaw dina yomb du yomb wax dëgg yàlla ndax mu ay ndaw lañu yu ànd bokk ndey bokk bàyyi gëm seen bopp aussi. am lu ñuy représenté fii ci Médina di ko jaayante nag bu yàgg ba ba tey waaw ci kaw loolu mu bëri lool ñu gëm seen bopp ci kaw gëm-gëm yi ñu am ci seen bopp itam ñu ngi jaayante ci li ñu bëgg wax dëgg yàlla waaw culture yi daal wax ci ñoom dina yomb du yomb mais ñu ngi noonu daal ndax cette conférence de presse a pour but d'obtenir une autorisation auprès du préfet, auprès du préfet qui nécessite un spot pour l'acquérir après avoir obtenu celle du maire pour tourner la journée et dans l'enceinte de la commune. ndax di ko wax ci olof mu gën a leer waaw bokk na ci yitte yi li gën a tax ñu woote conférence de presse bi muy li ñu soxla te mu doon suñu autorisation bi nga xamante ne waaw yite woon nañ ko suñu yoon ndax yàgg nañ ci lool te it euh, dëkk bi ku ko xam xam ne instant bi jaxasoo na yëngatu na ndax lii nga xamante ne yaakaar naa ku ko xamul dégg nga ko muy Covid 19 déstabiliser na waaw gars yi ba tey maanaam on n'a pas le choix te suñu autorisation dafa wëlbatikuwaat tegu dellu ci préfet bi nga xamante ne maanaam moom la ñu indexé pour mën a continuer suñu liggéey ci jàmm ak salaam. waaw trois ans de souffrance nag tamit comme ni ma la ko waxee rek ci su yoon bi la bokk peut-être quatre ans la sax mais dañu def trois ans yi rek parce que si lañ nekk ci ak di nekk ci activités yi. waaw li ko waral nag bokk na ci. souffrance lañ ko mën a tuddee parce que ay ndaw lañ woon dugg ci loo xamante ne ñu ngi ciy soog a dugg xamuñu ko ngi ci xamul bari na te bëgg nañ ko ci kaw bëgg-bëgg yooyu ñu si am nag waaw mu metti woon lool ndax ku xam jàngitam xam ne daraam yombut xam-xam si boppam moom la dara am yombul ba bari lool ñu jàpp bàyyi bari lool ñu fi des wax dëgg yàlla ci kaw ñi fi des nag am na ñoo xam ne sax kenn du leen gis wallahi lazim waaw tey nag man képp koo xam ne rek Noah mu ngi yëkkati téléphone di la woo ndax ku lim juum waaw di séq ak yow lépp luy projet culture yi bu dee ne saa yi ñu antame dara rek yaa ngi koy yëg yaa ngi ciy jaayante maa ngi lay remercier wallahi di ko njëkkee ci kilifa gi ñuy wax Souleymane Dia du culture yi kenn ku am fayam ndax jàmm jàpp ay nit doon ponkal seen ay xale yu ndaw yu ne si yoon wéet ci lool xamoo fu ñu jóge xamoo fu ñu jëm lépp dara xamoo ko ci ñoom nga ñëw nuyu leen rek salaamaaleykum maaleykum salaam xamante nga ak ñoom ëpp oh, ña nga ca kaw ña nga ca kanam yombul yi am na mille personnes yu nekk Médina yoo xam ne wallahi lazim diis yi rek buñ déggoon këlce yi tey bàyyi nañoo sonn ci këru àddina te culture yi mën nañoo tegoo lu ne ndax euh, jaayante nañ ko kon daal may remercier ñëpp ñëpp képp koo xamante ne rek yàgg nga jàpp ci mbir bi ñu ngi lay remercier bu baax di ko di jaajëfal itam jabaru dirigeant wu culture yi li tax jabaru dirigeant wu culture yi mooy noa solal na leen lool wax dëgg yàlla waaye every time man sama xel du jóg ci yéen ndax coono ji diis na torop waaw njëkkee ko ci nag aadama bu alaaji yàgg dëj keroog loolu la wax nee na day togg reer te du gis jëkkër ju ko reer mu yéeme lool may tuub di jégalu di ci teg ku ñuy wax Jeynaba waaw yaayu Cheikh Ahmadou Bamba di ko remercier di leen jégaluwaat bu baax a baax a baax di wax képp kuy autorité Médina rek culture yee ngi nii te yor seeni projet di leen remercier bu baax a baax waaw di leen jaajëfal encore ak waa Medina TV it ca kaw ca kanam lii daal laa leen mën a wax waaye xam naa ne nit dootu leen téye bu soobee yàlla ndax yéen ak culture yi moom mënatul a yomb. <laughs> man maa ngi tudd Souleymane Dia maa ngi euh, je producteur de cinéma voilà sama relation ak culture yi di ko indi defe naa benn benn publicité laa doon tourner laa doon produire defe naa mooy Coupe d'Afrique bi. Euh, Orange da doon def benn benn production africaine man maa gagné woon marché bi maa ko doon produire biir Médina moo defoon connaissance su ay jeunes yoo nga xam ne dañ bëggoon cinéma mais xamuñu lan mooy cinéma loolu loolu ma indi sama relation ak culture yi parce que question bi mu ko posé sànq peut-être que ni euh, moom mënu si wax lu bëri mais le plus souvent jeune Sénégalais ñi bëgg def cinéma du ñu xam lan mooy cinéma cinéma da am projet scénario bind dafa am ñu ko moom dafa ñoo xamante ni ñoom moom bind am ñuy réaliser am ñuy filmer ay composante lañu tey jii nii buñ la waa ñëwee Assane sama bureau présenté ma seen projet du woon scénario mais projet la woon na waa ngi nii rappelé li ma ko wax c'était mal écrit histoire bu jëlee histoire bi ni mu demee woon ak histoire bi ni mu ni mu nekk léegi dina mel ni yàlla ak yàlle parce que bind dafa am nu ñuy bindee dafa am nu ñuy réaliser ay normes la cinéma norme la mais le plus souvent jeunes yi dañuy jóg duñ dem marché sax si kër gi rek la ñuy jël ay ingrédients rek bëgg bëgg a yàq te loolu mënut a nekk cinéma dafa am ay normes ñëwloon naa ko sama bureau pendant presque un an boole ko ñoo nga xam ni bind mooy seen seen seen métier muy xëy ñetti yoon ci ci semaine bi maa koy jox transport maa koy jox mu lekk. boo amee manifestation répétition ma jàpp ci producteur loolu lay jëriñ day accompagner ay jeunes liñ si def bi ñuy dooree ba léegi mënoon na produire film bi moom xam na man xam naa am mais togg nañ ko togg ba nga xamante ni scénario bi mën nañu wax ni aboutir na aboutir na sax bu yàgg mais gàllankooru ñaari ñaari Covid yii moo doon moo doon jàllankoor bi man maa leen gën a yàkkam ci sax tournée parce que dama joxe sama parole dama joxe sama engagement casting am na rôle yëpp xam nañ xam nañ seen bopp décor yi def nañ suñu repérage lépp taxaw na équipe technique yi taxaw na lan moo des génne xaalis tournée génne xaalis tournée moo gën a yomb ci loolu ñu ngi répété ñoom depuis de on va dire ba nga xamee ba léegi un mais am na benn jéego bu ñu jël bu ñu am su ma mënee exprimer wu noonu loolu mooy jàllankoor bi ñoom bi ñu leen mën a wax cinéma dafa am norme série yi ñuy gis yu bëri yàlla ma yàlla baal j'ai rien parce que am nañ succès yu bëri du ñu am scénario du ñu am plan de man nag dama leen man rus naa man sama tour di nekk foo nga xamante ni du nekk lu sérieux man ku ma xam cinéma ñi ci bu ñu ma gisee sax ma taxaw di di nekk culture yi sax il se pose des questions mais lu tax lu tax may def loolu lu tax may wàccee sa bopp ba si suuf man du ne cinéma au Sénégal te xamul te waxuñu sama tur man Souleymane Dia maa ngi face au micro bu ñu ma gisee man nekk ak ay gune Médina sax da leen di jaaxal parce que man je suis rue 41 angle 26 laa juddoo bu ma gisee ay jeunes Médina bëgg cinéma mais nekkuñu si norme cinéma dama leen di teg si norme cinéma ba pare ensuite ñu produire jot nañ nag pour produire def nañ suñu casting def nañ suñu repérage plan travail yi taxaw na mais yàlla moom moom veillu veillu suñu tournage la ñu la ñu defaat Covid premier Covid bi moo am ñu abandonné ñu ne ay gars mi daal fi la nax rek ñi kii moom fekk tamit am naa yeneen production yu may def diggante bi def naa si ñaari métrage ak ay cours ak ay clip ak ay pub j'ai une autre activité jeune une boîte à faire tourner mais nee naa man ñii gëm naa leen ñi mu leen gëmee nag noonu la monsieur le maire Bamba Fall tàllal leen loxo. waaw man maa El njaga Ndiaga nekk maanaam dirigeant ci culture yi man naa man maa leen diriger ñoom ñëpp ñu topp sama ginnaaw. waaw loolu boo ko gisee ñu ñu def ko parce que xamuñu fan lañ jëm ak feebar bi te temps bi ñu perte dafa bari trop te xaar bi tamit dafa yàgg te mënuñoo toog di xaar li nga xam ne xamuñu fan lañ jëm ak moom kon dañuy obligé jéem a demander autorisation pour mën a continuer suñu activité. maanaam waxin la. parce que trois ans yoo xam ne lekkoo ci benn dërëm yombul nga téye ay doomu jàmbur dinañ liggéeyaloo te jox ci kenn cent franc loo tax ñu ne trois ans de souffrance am ay kilifa yu bàyyi seen yite di ñëw di jàppale te jox ci kenn lenn mu bàyyi yiteem loo tax ñu tudde ko trois ans de souffrance loolu moo tax ñu wax loolu. parce que dafa yàgg trois ans koy nekk ay xale daw ñu daañu loolu yombul franchement yombul loolu tax ñu tuddee ko noonu ñu ñun ñoo bàyyi de c'est que dañu dem bu demee ba war a génn rek yàlla fi ñuy natt ñu am ay tolof tolof ñu toogaat. loolu rek moo ñu fi bàyyi mais du leneen mu mosuñoo toog temps bi ñu la wax yëpp ñoo ngi liggéey moo tax ñu ne faa ñu continuer suñu activité. waaw événement yi ñu gën a marqué nag bi si njëkk mooy suñu anniversaire chaque année ñu feete ko ñu commencé ba tey chaque année ñu feete suñu anniversaire en même temps ñu ngi def ay ay tournages yoo xam ne day dem ba war a génn mu amaat ay tolof tolof loolu yëpp lu ñu marqué suñu suñu vie culture yi loolu ñàkkuñu ko de ci benn côté. bu ñu ñàkk nañ xaalis kon ñu ngi wax loo xam ne teguñu ko fenn parce que ku am ku mel ni Grand Jules toog suñu wet pour man ñàkkuñu dara waaye dafa am lu ñuy teq loo xam ne ñun sax mënuñu ko expliquer pour te dire ñun sax mënuñu ko expliquer en réel voilà loolu rek moo ñu baare autorisation mais du leneen parce que booy ñu ngi fi ñu ngi liggéey ñoom ñëpp koo si ne ayca munal ayca mais ñemewuñoo def lu loo xam ne amuñ su autorisation parce que dëkk bi loo lay demee moo tax ñemewuñu